leen jaajëfewaat bu baax ah, yéen suñuy internet yéen ñi safoo taamu li nga xam te ne mooy seen revue de l'arène di ko suivre chaque matin fii ci Leewtoo TV Mbaye Babacar nuyu naa la nga fay ma daal di dalal gan gi rek di wëyal. tey dafa mel ni da nga nekk en forme day Mbàkke kontaan naa ci yow kontaan ci mbokki internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV naan leen euh, ñëwaat nan fas yéene leen jukki li nga xamante ne bii moom moo ruuse ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne ci làmb la ñuy bind. Euh, tey nag ni ni nga ko waxee sànq dañu am gan bu bees muy huile Zador di diwlin ba nga xamante ne bii fii lañ ko defaree ci réew mi ñuy ñaan population Sénégal yépp ñuy jëfandikoo diwlin bi nga xamante ne bii mooy diwlin Zador amul lenn cholestérol lépp rek euh, nu ñu koy waxee consommation locale la ndax ci réew mi lañ ko defaree doomu réew mi ñoom ñoo ko war a jëfandikoo li mu mën nag bëri na. nii Ndeye Mbacke yaa ma ko gën a xam. waaw waaw nuyu naa la li mu mën bëri na. Ndeye Mbacke waxi naa la di amaat mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. jeudi 25 février 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam mu njëkk premier choc après 11 mois de somage Lac de Guiers 2 Eumeu Sène vont régaler le public. gannaaw ba ñu toogee fukki weer ak benn lamb ji saajul mbër yi bëre wuñu arbitre saxul soufflé bëre. léegi nag làmba ja sàjjaat na incha allah le 4 avril ñaari jàmbaar yi war a jàkkaarloo muy Eumeu seen ak Lac de waaye li leen di xaar moo bëri Assane ndax sas wu rëy moo leen di xaar ndax daañu bégloo sénégalais yi ci combat boobu ndax làmb gëj naa am te sénégalais yi dañoo namm la. dëgg la Mbaye Babacar làmb ñu ngi ko arrêté woon le 14 mars 2020 boobu ba léegi dara amul. léegi nag Eumeu Sène ak Lac de ñoom ñooy indiwaat ñooy nekk première grande affiche ci saison 2020 2021 léegi suñu làmb na dikk ne ñaar ñi est que dina régaler public bi làmb boobu nag ñu ngi ko prévoir le 4 avril 2021 Gaston Mbengue moo ko tëgg suñu journal suñu làmb nag nee ne Eumeu Sène ak Lac de war nañu régaler public bi pour fàtteloo stressu coronavirus bi kon li leen di xaar bëri na ñaari mbër yooyu noonu waaw li leen xaar bëri na revanche la troisième euh, duel la entre ñaari mbër yi vraiment première grande affiche la ci saison bi après coronavirus. te Olof Ndiaye nee na mu njëkk dafa war a dal. dafa war a dal. <laughs> kon la bii dal bu baax. reprise des combats le huis clos partiel est une bonne solution. mu ne huis clos parcelle nekk na huis clos ba nga xamante ne bii solution bu baax la ndax huis clos parcelle euh, donte ñëpp du ñu ñëw sax dana stade bi dana am quelque personnes ya nga xamante ne bii daañu fa nekk euh, mu ñu jàpp ne buñ ko defee dana nekk la nga xamante ne bii mën na andiwaat làmb ji te yi mën nañ cee sawar. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la li waa CNG jàpp pour le moment mooy que ne stade bi bu arène nationale bu combat amee trois cent personnes rek ñoo fa war a teew loolu nag arrangé wul euh, promoteurs yi looloo tax ñoom ñuy sàkku benn huis clos partiel huis clos partiel mooy ñu permettre au moins six mille wala trois mille euh, amateurs wala spectateurs ñu ñëw seetaan ci combat bi loolu nag lu tax ñu bëgg ko mooy que ne euh, huis clos su amee ñoom duñ jaay billet Euh, bëgg nañ euh, duñ jaay billet te loolu manque à gagner la si ñoom donc euh, huis clos partiel bi dina leen arranger te bëgg nañ également ñu proroger saison bi mu dem ba ci kanam. te noonu nag Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre mu ne c'est raisonnable d'autoriser trois cent à cinq mille places à cinq mille personnes. moom mi la fi nekkoon jëwriñ ci euh, nguuru Abdoulaye Wade doon wuy di wuyoo ci turu Serigne Mbacke njaay moom nee na euh, li nga xamante ne bii moom mooy huis clos bi moom ànd na ci ñu amal ko ci ñetti téeméeri nit jàpp juróomi téeméeri nit ndax nekk na la xamante ne bii euh, moom xalaatam nee na loolu lu war a mën a nekk la moom Serigne Mbacke Ndiaye moo wax loolu. dëgg la Mbaye Babacar Serigne Mbacke Ndiaye xam nañ ko nekkoon na ancien ministre bi Wade nekkee président moom nag day yëngatu souvent ci làmb benn. nitu làmb la da ci da ciy addu souvent su suñu làmb jël ko nag tey nu wax nee ne euh, huis clos partiel bi lu raisonnable la war na ñu mën a def autoriser trois mille à cinq mille personnes ñu euh, seetaan làmb ji ndax nee ne trois cent personnes yu ñu autorisé du dara te trois cent personnes yooyu sax ñu leeral ko du ay ay amateurs ñoo ñëw seetaan si mais techniciens yi waa CNG ak lutteurs yi ñooñu ak journalistes yi su leen boolee muy trois cent ñooñu leen permettre nee na loolu nag dafa ndaw trop léegi daal euh, CNG war nañ permettre 3000 wala 5000 personnes ñu ñëw seetaan ci combat yi. ca loolu nag capacité d'accueil dans l'arène nationale mille places au lieu de vingt deux 22000 places. waaw mi ngi noonu Ndeye Mbacke noonu la ko journal bi waxee euh, nee na li nga xamante ne bi moom mooy capacité d'accueil arène nationale bi maanaam arène nationale bi li mu mën a jël ci ay doomu aadama nee na euh, vingt mille places la maanaam ñaar fukki junni doomu aadama au lie de vingt deux mille places Assane dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw réunion bi promoteur yi amoon ak CNG capacité arène nationale bi dafa posé woon parce que euh, ñenn ñi dañu yaakaar ne vingt deux mille places la looloo tax nag journal suñu làmb mu ñëw leeral fa ne euh, es arène bi vingt mille places la au lieu de vingt deux mille nee na siège yu rouge yi quatre mille cinq cent places la siège yu jaune yi sept mille cinq cent places siège yu vert yi huit mille places. ginnaaw la dëgër Eumeu Gaston Mbengue da ca toftalaat beneen combat ñaari jeune ah, accroché Diène Kairé le 4 avril Modou Anta à l'épreuve du fils de Boy Kairé muy combat jànq ba nga xamante ne bi amateur yi bokk na ci combat yi leen gën a neex combat bi leen gën a neex muy dox ci diggante Diène Kairé doomu Boy Kairé ak Modou Anta xale bi la dëkk Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Modou Anta nag tey dafa xëy wax ci journal bi nee na moom li nga xamante ne bii mooy bëgg-bëggam li ko tax a jóg te it li wàcc li ko wàccee sas mooy mu jàkkaarloog doomu booy kayri bii rek defal ko bagage delluwaat Cees kaay. dëgg la Mbaye Babacar moo du Modou Anta face à Diène Kairé le 4 avril Modou Anta à l'épreuve du fils de Boy noonu la ko journal suñu làmb waxee Modou Anta mii dafa war a jàkkaarloog euh, Diène Kairé le 4 avril bi ci combat bi war a dox ci diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers nag na nag Diène euh, Boy Boy Modou Anta mi. am na combat boo xam ne ni war na ci daane pour mu continuer carrière bu baax a baax a baax waaye nag affaire yi du yomb ci moom ndax mi ngi jàkkaarloog euh, Boy Kayre euh, mi ngi jàkkaarloog Diène Kayre di doomu Boy Kayre Diène Kayre mi ngi tegale ay ñu ngi ci diman dynamique bu baax ndax dafa daane Malaw Seras euh, ba Boy Bawol Marley doog a niil ak Quench euh, niil boobu mi nga mi ngi xewe woon le 15 euh, juin 2019 ci arène nationale looloo tax daal mu ne Modou Anta mi war na góor góorgóor lu baax pour que combat bi mu mun ci génn. kon Modou Anta am na sas wu rëy moom tamit ndax euh, xale bi mu dajal ndaanaan la. xale bu mu dajal ndaanaan la dafa am fu mu teg bëtam ci làmb ji looloo tax Modou Anta war na xoolaat boppam war na jël décision pour que mu mën a ci combat bi mu mun ci génn. te macha allah gannaaw ko dafa am dafa baax. am na ginnaaw waaye heureusement bi huis clos la. waa Thiès duñ ko mën a indi mais nag dinañ ko mën a seetaan en direct ci tele yi. incha allah incha allah. ginnaaw réunion entre promoteur et CNG conflit entre promoteur et CNG. Mm-hmm. Bira une patate chaude entre ses mains. Euh, président Birane Sène euh, bi tey dafa ñëw euh, xamal ñu ne euh, pataas bu tàng jër mi ngi ci ay loxoom. dëgg la pataas nag bu tàngee Assane. Mm-hmm. pour nga téye ko yaakaar naa da da dana nekk jafe-jafe gannaaw ba mu dajeeg promoteurs yi. ñu waxtaan te dara tukkeewu ca déggoowuñu euh, léegi nag euh, pataas bu tàng bi mu ngi ci ay loxoom ñu jéem a xool naka la koy jéem a réglé potaas bu tàng bay baabakat boo ko yoree wicceex rek moo ci moo ci tegu noonu la ko see euh, journal suñu la am waxee conflit CNG promoteur une patate chaude entre les mains du président Birachène maanaam euh, promoteurs yi dañu am euh, werante ci affaire te nombre de personnes yi war a teew ci stade bi ñii bu ne 300 CNG bu bu trois 300 personnes pour ñu seetaan lamb yi promoteurs yi moom dañu bëgg ñu indi ko ba 3000 wala 5000 problème boobu daal la soo suñu laamu basé pour wax ne c' est une patate chaude euh, entre les mains de Bira Sène en tout cas lu ci mën di am rek nañu waxtaan bu déggoo Assane loolu mooy njëriñu làmb waxtaan la rek parce que vingt vingt mille places boo leen boo ko wàññee ba trois mille à cinq mille je pense que ne euh, distanciation sociale euh, distanciation sociale yi. Uh-huh. mën nañ ko respecter. dëgg la Assane. Serge Kaolack les règlements de compte dans l'installation du nouveau CNG. moom mi lee nga xamante ne bii reporter sportif la ñu ràññee ko bu baax a baax ci li nga xamante ne bii moom mooy milieu sport bi di suñu papa di suñu doyen Sathio Mbi Diop. ñëw na sekk ak suñu làmb waxtaan bu yaatu nee na CNG bu Kaolack installation bi di bureau bu bees bi am na ay règlement de compte ya nga xamante ne bii mi ngi ci biir. dëgg la Mbaye Babacar Sadio Mbi Diop moom mooy doyen reporter sportif yu nekk ci Kaolack moom nag euh, CRG bu bees bi équipe bu bees bu nekk Kaolack moom bokk ci loolu nag nee na ba mu ko yogee daf ko métti loolu ndax daf ko bett. Uh-huh. bett na ko lu tax la fet que ñu génne ko ci euh, équipe boobu. lu tax nag loolu am moom pour moom mu ne ay réglement le compte la gouverneur bi nee na dafa toog ne ko Sadio Mbi bëggul làmb te moo ne mu ne c'est la première fois benn gouverneur di wax loolu moom daal mi ngi leen di woo ñu calmé wu ba pare. Euh, liggéey dans la dans l'unité pour que sport Kaolack wala làmb Kaolack jëm ci kanam. Olof Ndiaye daf ne mag mot naa bàyyi cim réew. surtout que te mag te mag ban ko laajee loo bokk ak yàlla dafa ne yàgg. yàgg voilà surtout que moom yàgg na ci xam na ko. Mm. wax dëgg yàlla waroon na mën a bokk ci ci équipe boobu rien que lim lim yàgg suivre làmb Kaolack. ku ñu ràññee la ci li nga xamante ne bii moom mooy milieu sport bi làmb ak li nga xamante ne moom mooy football su ma ko euh, dimanche su ma saa jot 17h su ma saa jot Ablaye Diaw su ne allo Sathio Abass Diallo xam ne loolu lu yàgg la boobu ba léegi mu nekk ci làmb mu nekk ci sport ñu war koo bàyyi xel bu baax moom tamit. dëgg la Mbaye Babacar. ca naka noonu nag réunion technique du CNG ce soir. ñoom ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy waa CNG gannaaw ba ñu dajee promoteur yi waxtaan te dara mm-hmm. sottiwul ñoom mel na ni tey jii ci ngoon war na noo dajewaat nag ngir waxtaan ñoom ci seen biir xool lan lañuy ñuy tënk ngir làmb ji mën a jëm ci kanam. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu dajeek promoteur yi mardi bële passé tey nag waa CNG ñoom ñooy euh, réunion seen biir réunion bi nag réunion technique la li ñu fay waxtaanee mooy yan disposition la ñu jël pour que finalement wala euh, dernière décision yi nga xam ne moom la ñu jël pour que le premier mars saison bi mën a démarrer réunion bi nag ku koy teew ñi koy teew ñoom moom mooy xalifa mm, Sow bun daaw de Diop Babacar Thioune directeur euh, Thierno Abaska ak Maysa Ndiaye ñii daal ñoo nar a teewee réunion bi nga xam ne nii 15 heures tey lay am foofu si CNG bi. dinañ ci xaarandi lu fa ruusee rek après dinañ ko dégg léegi nag ci li nga xamante mooy journal record MMA Bombardier sur son combat avec le polonais battre Pudzianowski et rejoindre l'UFC. Bombardier moom mi lee nga xamante ne bii moom moo war a jàkkaarloog Pologne bii di Pudzianowski eh, incha allah bu ci yàlla àndee eh, le 20 mars eh, journal bi lim ñu xamal mooy que il faut mu gagné Pologne bi ngir mën a dugg ci lii di UFC bi. dëgg la Mbaye Babacar Bombardier moom si boppam moom moo ko xam ne ci journal record moom ne moo wax ne war naa battre Pudzianowski su ki mii nga xam ne moom lay dajal pour mën a rejoindre l'UFC UFC nag moom mooy benn organisation MMA bu gën a mag ci monde bi moom ëpp xaalis euh, Pologne Pologne Pologne Pologne moom moo engagé Bombardier ci combat bi euh, Pologne également moom moo nekk euh, organisation bi gën a ngande ci Europe te combat bi Bombardier jëm Euh, ki muy dajal moo gën a bokk nag ñetti sportif yoo xam ne nii ñoo gën a siiw ci Pologne te seen dernier combat bi plus de cinquante deux mille personnes suivre nañ combat boobu looloo tax Bombardier ne bu koy bu ko daanee dina am public te dina ko mën a permettre également mu euh, war a àgg ci UFC bi. yàlla na ci jëlee ndam ak jàmm. amiin amiin reprise des compétitions à huis pour pourquoi faut-il craindre Modou Lô Ama Baldé door gi ñu war a dooraat euh, li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji ci euh, anamu huis clos euh, journal bi ne lan moo tax ñuy am xel yaar ci combat amaa balde ak Modou di combat royal boobu nga xamante ne bii moom la amateur yëpp di xaar mu journal bi ne lan moo tax ñuy am xel yaar naan combat bi dana am wala du am. dëgg la Mbaye Babacar journal Record moo xëy wax loolu moom nag li tax mu wax ko dafa am ak waxtaan kenn koo xam ne nii bokk na ci ni ko Nicolaï kooku li nga ko xamal mooy que ne bu état bi accompagné wul promoteur yi parce que état bu bu ab accompagné wul promoteur yi promoteur yi duñ am fonds pour gagner xaalis également duñ am possibilité jaay seen i billets duñ am ay sponsor looloo tax lii lépp la tënk ne daal bu état bi indiwul euh, ay ay appui ñoom parewuñ pour tëgg combat bi di war a dox ci entre euh, Ama ak Modou Lo waaye nag ñu fàttali ne Bécaye defoon na benn sortie ne combat bi dina am le 25 juillet à huis clos. li ci kanam rawuli bët du ci mën a am rek dinañ ko xamee Assane Waram maa ngi lay jaajëfal bu baax mbay baax li may tàggatoo mooy sama diwlin bii nga xam ne dama maa ko bëgg sama xol diwlin bii moom maa ko bëggal sama bopp xam nga lan moo tax dafa set sell. ba pare ñu defaree fii ci réew mi te olof Njaay dafa am lu mu wax kuy jéggaane ku nekk sa dëkk moo tëggul suñu dëkk am na diwlin na leen utiliser diwlin bii nga xamante ne bii doomu réew mi ñoo ko defar mën na ceeb ceeb bu jën bu xonq wala bu weex mën na yaasa wante tamit mën na omelette xam leen Assane Wall looy tàggatoo mbay maa ngi lay maa ngi maa fay di fay Babacar ne ko am leen xam naa moom rek la mën a togg moo tax chaque jour mu koy répété di remercier waa Linguère remercier Yacine Fall Yacine Fall ñoom Mansour Fama tout le monde di leen jox dig daje bu suba ak jàmm insha allah comme ni ñu ko waxee ah duulin baa ngi noonu doomu réew mee ko def consommé local la nañ ci dund bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di jox internet yi dig daje ëllëg insha allah